mbokk yi daleen ak jàmm ci biir limametti point com ñu ñëw ak yéen ci seen revue de l'actualité nekk li nga xam ni moo gën a fës ci xibaar yi fi jot a xew li ci gën a fës ki nga xam ni uh, moom mooy Lobé Ndiaye ndaw soosu nga xam ni uh, dañu ko daal di faat faat bakkan ni moom mooy autoroute bi enquête tam mi ngi suivre son cours dinañ ko gën a yaatal yi uh, dinañ ko gën a yaatal aussi ci seen revue de l'actualité suñu ci toftalee yeneen xibaar yi nga xam ne On fait fi moment doon revue de presse ngeen koy am ci biir sen site d'information à ñu dooree ko ak baccalauréat 2021 ci cas de fraude yi nga xam ni am na ci ginnaaw cas yi nga xam ni jàpp nañ leen fële nga xam ni moom mooy Pekes lii moom mi ngi xewee fële nga xam ni moom mooy Diourbel foofu nag étudiant buy wuyoo ci turu Xaadim Mbuup la ñu daal di jàpp muy def épreuve yi pour copinam moom nag dafa ñëw daal di déguisé wu en femme ngir passé li nga xam ni moom mooy épreuve anglais bi bi ñu ko jàppee nag yóbbu ko fi nga xam ni moom mooy police moom li nga xam ni loolu la joxee comme explication. opposition nee na moom il a agi par amour ndax ki nga xam ni moom mooy candidate bi di Gangue Dioum eh, copinam la maanaam ñoom ñaar dañoo daal di eh, sekk dara moo tax mu dem eh, di ko defalee li nga xam ni moom mooy épreuve anglais bi te mi ngi wax ni ki nga xam ni moom mooy xale bu jigéen bi di Gangue Dioum taxu ko woon ay fi nga xam ni moom mooy anglais. ñu daal di jàll ci leneen lu doy waar daal di xew fële nga xam ni moom mooy buntu kër Youssou Ndour ki nga xam ni moom mooy roi du mbalax buntu këram la benn waay daal di ñëw daal di jam boppam maanaam daal di xaru loolu nag mi ngi xew démb ci ay booru une heure du matin ji mi ngi wuyoo ci turu Abdoulaye Ndiaye moom nag ci information yi nga xam ni jot nañ ko xel mi taxu koo neex dafa daal di ñëw fi nga xam ni moom mooy buntu kër Youssou Ndour ñu ngi ñuy wax ni sax yàgg na di fa ñëw daal altercation ñi nga xam ni ñoom ñoo yor sécurité bi mujj gi mu daal di génne paaka daal di jam boppam loolu la la mbir yi daal di demee jamono ji ñuy wax ak yéen nag ki nga xam ni moom mooy Abdoulaye Ndiaye kooram ñi ngi ko jël yóbbu ko ci morgue bi ginnaaw bi police ñëwee ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa sapeur pompier ak ñi nga xam ne ñoom ñooy médecins yi ñëwoon doon jéema a sauver ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Ndiaye waaye moom dafa daal di mujj ñàkk bakkanam ci jam-jam job boobu nga xam ne jam na ko boppam buntu kër ki nga xam ni moom mooy Youssou polémique daal di am ci li nga xam ne euh, moom mooy diggante soxna ay Diallo ak li nga xam ne moom mooy Iran Ndao ay rumeur doon génn ni ki nga xam ne euh, moom mooy soxna Aïda Diallo euh, dafa demoon seeti ki nga xam ne moom mooy oustaz Iran ak ginnaaw loolu nag ki nga xam ni moom mooy bi bile daal di génn daal di leeral loolu le moom nee na moom ak soxna Aïda Diallo mosuñoo tegante bët maanaam mosuñoo gisante naam nag chaque vendredi dafay jël ay teranga yónnee ko ci fi nga xam ne moom mooy ci daaraam ji jàppale leen moom mosta gis ki nga xam ni mooy soxna ay Diallo naam nag daan na jote li nga xam ni moom mooy ay teraangaam di ko jot ba léegi ba si tabaski bi ñu génn moom mi ngi wax ni ki nga xam ni moom mooy soxna ay Diallo daal dina koy yónnee xar waate ñoom ñaar mosuñoo gisante loolu nag di ay kàddu yu tukkee ci ki nga xam ni moom mooy oustaz Iran ndaw leneen lu marqué actualité bi di ki nga xam ni moom mooy acteur bi di Baye Fall Baye Fall nag nekk ci série bi nga xam ni moom mooy série euh, Wiri Wiri moom nag dafa daal di wax ni dafa am ay mu bët maanaam dafa am feebar boo xam ni dafa jàpp bët yi ba daanaka euh, jamono ji euh, gisatul dara moom nag ginnaaw sorti le mi ngi doon wax ni ñi nga xam ne ñoom ñooy acteur yi nga xam ne ñoom la bokkaloon a Wiri Wiri dañu ko daal di seetaan am na si sax ñoo xam ni dañu ko doon ñaawal la kàddu yooyu nag daal di metti bu baax. ki nga xam ni euh, moom mooy Sanekh moom aussi euh, mu daal di génn daal di def sorti daal di wax ni euh, wax jooju teguwul fenn maanaam li nga xam ne Baye Fall wax na ko nekkul dëgg ñoom mosuñoo sonal ki nga xam ni moom mooy Baye Fall ci feebaram bi nga xam ni moom moo jàpp ay bëtam moom nag mi ngi soñaat ki nga xam ni moom mooy acteur bile mu daal di delloo si xelam loolu nag di benn information boo xam ni jot nañ ko ci ki nga xam ni moom mooy acteur bi di Baye Fall nekk ci série wiri wiri voilà mbokk internet yi loolu lañ leen indiloon tey ci seen actualité du jour nekkoon li nga xam ne moo gënoon fës ci xibaar yi fi jot a xew ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di topp seen site d'information limametti.com ngir dara bañ leen rawoo di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen xibaar